yëkkati naa fippu day mën na yëpp fitna le tee mooy yéene kaay ne fitna gi fitna gi bugaan gay dani daf koo daal di wax ci yéene kaay bi daal di xam ne nag dëgg-dëgg lan mooy naqaram jëmale ci président Macky Sall ab di xam le ni lépp luy naqaram daal dina koy yebbil président Macky Sall moom bugaan gay dani ci yéene bi daal di ni moom président Macky Sall mi ngi bind ci taarixu réewum Sénégal ay mbir yoo xam ne lëndëm na lool ngir suñu démocratie daal dinay caxat caxatee suñu démocratie daal di koy padd daal dina ko alee bugaan ne Macky Iran koo xam ne nag dafa jël ab askanam daal di xoqatal di noggatu noggatu leen ba maar day taali njiital gëm sa bopp daal di xam le ni daanaka Afrique ga nga xam ni seetu lañ fa woon ci démocratie léegi nag daal di nañ koy weesu àdduna wërngal këpp moo ñuy tex tex maree ñëpp xam na ni senegal léegi seenub njiit day noggatu askanam di noggatu opposant yi nga xam ne ñoo fa nekk senegal nag dal di ciy wàññeeku bu baax a baax na ci wàllu koom ñu daal di jógee ci yoonu yaakaar di teet ci yoonu yàqute mu digoonu nag moom Sall yaakaar ci jamonoom akub yàqutee yéen kaay bi ne na leer de ci ton boo xam ne daal dinay dëgër këcc la Bougane Gueye Dany mii dalee ci kaw président Macky Sall ñu daal di nekk ci Sénégal goo xam ne administration bi président Macky Sall moo leen di joxoñ fu ñu jaar moo leen fa daal di jaarloo nekk ci Sénégal goo xam ne conseil constitutionnel président Macky Sall moo koy joxoñ ne ko kii na jàll kële bu mu jàll di seggaay adversaire lépp loo xam ne nag na ko àdduna wërngal këpp yëg lépp loo xam ne am na ci réewum Sénégal ci ñaawte wala faatug bakkan wala leneen nan ko jiiñ président Macky Sall opposition bi ñoo yey tëggi bool ndax dañoo bëgg président Macky Sall ci boppam déglu sunu njàmbat gi xam ne dëgg-dëgg Sénégal sonn nañ tribune yéene kaay ne sonn nañ bay manifester ni ki tey waaye nag sant yàlla ndax sunu njiit ci wàllu diine daal di nañ ciy àddu de waaye tam ñeneen ñoo xam ne am nañu baat ci réew mi daal di nañuy àddu Pape Moussa Traoré ci tribune yéene kaay daal di xam le ni yeewi ci boppam daal di nañuy teggi pédal ba ndànk rek président Macky Sall nekk ci tànku leen yéene kaay bi dee bi xam ni tey jii la ñu bëggoon amal ci place de la nation du am nga xam ne mi ngi daal di jub si gars yi jaaxle woon lool ci préparatif yi jàppoon ni nag manifester tey jii dina ko yàq yéene kaay bi ne ma du ko yàq ndax du am tey jii leader yu yeewi askan wi daañu waxtaan ak askan wi 11h xamal leen ni nag manifester gi dañ koo dàq ba jëmmi jamono demb rek démb Ousmane Sonko ña nga xam ne ñoo woon ne dañuy fanaan ci këram ngir aar ko nee na leen ñibbi leen ndànk toog ndax nag tey dara du yëngu suba it jàmm dong moom mooy am ci réew mi yéene bi ne waay waay la bugaan demoon kalaame ji Serigne Mountakha Mbacké xalif général des Mourides daal dinay joxe dara jii kilifa diine yi dugal nañ seenu loxo ci wax ji ba daar daar manifestation opposition bi daal di nañ koy dàq ba jëmi jamono te it waxtaan mën na caa mujjee ba jàmm daal di am l'observateur daal di xamle nii en tout cas manifestation tey jii de gaa yi tiitoon nañ rawatina nag lacrymogène ak njaayum xar mi le quotidien le quotidien nee nañu xaar tey de ndax nag waa yeewi askan wi daañu ngeen ak taskatu xibaar yi le mandat yéen kaay ne laataa loolu mbaadu nag président Macky Sall nag dafay dox ci tànkuk Alpha Condé ndax nag Alpha Condé moo daan jël ay këru opposant di barricade kenn du kenn du manifester mbaadu président Macky Sall ci tànk yooyu la nekk Sud Quotidien daal di xam le ni loo ci mënti déggit lii xeeñ ci réewum Sénégal neexul xanaa xanaa kay gaay yi deltu ginnaaw ba manifestation bi du am critique yéen kaay daal di xam le ni wax waxee de l'opposition bi fas yéene ni ki tey manifester ga nga xam ne waxoon nañ dañ koy amal dañ ciy daal di deltu ginnaaw laas yéen kaay ne ma manifester la goo xam ne daanaka diiwaan yi nga xam ne dugaloon nañ yëpp dañ leen ko gàntal préfet yëpp dañoo xam le ni manifester xaju fi réew mi quotidien daal di jox kàddu Ansoumana Dione mu xamal nag politiciens yi ne leen yéen ak yu nguur yeeg yu opposition bi laay waxal ma ne la réew mi bu leen ko taal moom moo leen ko te yéen waa opposition bi waa yeewi dañoo invalider seen benn ngeen taxaw ni réew mi moom day boy force fu geen ko teg waaye yéen nit nguur gi opposition bi bu taxawee ne leen day marché bàyyi leen leen ñu marché ndax nag loolu mooy andi jàmm ci réew mi tribune yéen kaay na jàmm réew mi mi ngi dooree ci président Macky Sall xam nu muy doxalee ak i opposant beneen bi mooy élection législative yi ak loo ci mënti wax président Macky Sall da ko war a dàq ba jëmmi jamono ña nga xam ne nag téye woon na leen mu daal di dugal defaraat seeni liste ci les élections ndax nag dëgg-dëgg jamono ji réew mi ni mu tëddee tëgg fi élection mënta ne laas na ma taskatu xibaar yi dugal nañ seen loxo ci jàmm réew mi le vrai journal ne taskatu xibaar kay dañoo bëgg politiciens yi waxtaan ci seenu biir ngir jàmm ak dal daal di mën a am ci réew mi l'observateur daal di may xamal ne gars yi day la ci ëpp ci ñoom la ñu xam le lenn la mooy réew mi bu tàkkee nag force occulte yi ñoo ciy daal di profitoo mën nañoo dunduloo réew mi nag jaxaan na ma yéeni kaay futur média bi daal di may xamle ni coowal force spéciale yi nag ba tey jeexul ndax juróom mandat dara daal di leen koy jébbale yéene kaay bi ma tey laa lay jox liste ñëpp yokkute ña nga leen di wër tribune yéen kaay ne en tout cas président Macky Sall moom ay sageam jàmm lañ wootee waxtu woowu nag yeewi ak wallu seenu ànd gi suufan cay bëgg dugg xajamal cere ja l'info yéen kaay ne ma cereg Macky Sall day El ay dara Aïdara xajamal na ko lool xamal ko nag ne ko bu dee mairie bii nga teg sa gët doo ko laal def nga ma otage daal di may xañ sama droit yi gën a ndaw sax waaye lenn laa lay xamal yow président maki Sall sama mairie bii doo ko laal ndax nag say ñoñ ci boppam li ñuy def ci tooxi doona moo ëpp lool ci réew mi waaye da nga caa gumba tëx ca luuca kon xañ ñu Afia tooñ la l'observateur ne waxtu woowu day suñuy doom ña ngay faatu ci immigration clandestine fukki bakkan ak ñeent daal dinañuy rotati ca Kafountine l'enquête yéene kaay daal di xamle ni fii ak feneen a ca yem askan wi day nekkunu ci jàmm directeur général des sénégalais de l'extérieur benn milliard la daal di teg ci taabal bi ngir fas yéene ko jàppale képp koo xam ni tukki nga ñibbisiwaat ci réew mi le mandat ne ma waxtu woowu Yankoba Diattara day sowe poste daal daal di tegub tànkam moom ministre bi dénk économie numérique ak télécommunication xamle na ni nag la jafe-jafe yoo xam ni wàllu koppar la te sakkan na lool waaye nag daañu def kéemtalaay kàttan ñoo nguur gi ngir daal di jëmmalaat poste taxawal na nag sax lépp loo xam ne dina ko méngale ak jamono fay nañu bor yi daal di xoolaat bu baax a baax nees roofe koppar ci poste googee ngir doxin wi gën a ñoŋ waaye tam fas yéene taxawal loo xam ne liggéeykat yi ak ñoom jiit yi xel dina mën a dal ci seenu nekkin tribune yéene kaay ne booba day nañu xam ne handicapé diplômé yi ñi ngi ci réew mi amuñu xëy soobu nañ ci grève de la faim am na ci ñoo xam ne metti leen nañ ba évacué nañ leen ci l'hôpital ba libération yéen kaay ne boobu suñuy doom ñi ngi faatu fii ci réew mi ay xale yoo xam ne dañuy réviser ngir BFEM bi ñoo daal di faatu ci lim goo xam ne sakkan nan lool juróom ci néew daal dinañuy teerandi diggante Tiwaawan Pël ak Lac Rose la ñu teeree gannaaw examen physique yi la ñu demoon te Lac Rose ngir daal di sangu bari na ci ñeneen ñoo xam ne faatu nañu te ba tey jii gisuñu seenug néew lu ci mënti am jàppaleen ni lim nga moom sakkan na lool lool te ngeen yendoog jàmm yi